ak ragal yàlla ak doylu ak fegu allahumma inni asaluka alhuda waltuqa walifaafa walghina allahumma inni asaluka alhuda waltuqa walifaafa walghina xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee kenn ci yéen bu lekke aw ñam na wax ñaan gi allahumma barik lana fihi wa atimna xayran minhu bu fekkee ne dañ ko jox am soow bu ca naanee na wax ñaan allahumma baarik lana wasidna minhu ndax kat amul dara loo xam ne dana boole lekk ak naan lu dul am soow xaddis bi abu daawud nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida akala ahadukum taaman falyaqul allahuma baarik lana fihi wa atimna xayran minhu wa ida suqiya labanan falyaqul allahuma baarik lana wa zidna minhu fa innahu laysa shay'un yujzi'u min altaami walsharabi ila allaban rawaahu abu daawud waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi six heures quatre di juróom benn waxtu yu tegal ñeenti simili tisbaar treize heures vingt sept di benn waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñaar takkusaan seize heures vingt sept di ñeenti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñaar timis dix-huit heures quarante trois di juróom benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak ñett gee dix-neuf heures cinquante quatre di juróom-ñaari waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñeent